émettant depuis le building communal de Dakar.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

yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo muhammadu rasulullaahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yeneen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni bàyyi fer nu baasin fa yaasin kooku mooy muhammadu rasulullaahi ku lay jaay taar na sa xel dem si yónneen ka taar ba yàlla yónnee ko sóoratu yaa seeni baay keru nu baasim fayaasim gumbay xileer yi sax ñoom day ña ngay palamtu yaasin kooka mooy muhammadu rasulullah rasulullah sopp ne lii sa loxo sa kaw yaa mata xam Muhammad may way yàllaa ku njëkk a way keneen ku ñëwaat di ko dangay barkeeloo moom ak la nii nii may way kooka mooy muhammadu rasulullah rasulullah ko gis déedéet soo ko dee xool si yonent yi doo ko gis soo ko dee xool si wali doo koy gis si xutbu samaani doo ko gis kooka daal mooy cundum Mamadou Abdallah yàgg naa gën kooka mooy Muhammadu Rasulullah Rasulullah ku way si alxuraan keneen ku ñëwaat di ko way dangay barkeelu nee na lii moo tax ma jël sama xalimaa di way nabi wa nabi wa rasuulu wal xaliilu wa wal abiibu wal imaamu wa daliilu براء البديع من خير الجمال وسنه الخدوس عن خير الكمال كون نبي المنتخى محمد xayril wara muxtaaru inda samade mu kokka mooy muhammadu rasulullah rasulullah Seydina Muhammad ñu naan ko Muntaxa ñii naan ko Mujtaba ñii naan ko Mustafa ñii naan ko Saaliw ñii naan ko Abdullahi Abdul Majid Abdul Samad Seydina Muhammad yaa bari tur yaa bari may Aminata mooy yaayam Abdala mooy baayam Seydina Muhammad Abdul Mutalibay maamam makka leen ko génne nan ko dagay jabaraan dagaanar nu bay cosaan diggam leneen lu dul xërëb waaye day ñoo lànk kooka mooy muhammadu rasulullah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

نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتنا جوكتي على جمود سيزن يرغو وحمارا سيزن ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول البلاد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

ñaanoon yàlla toog seen émission Wadduha suñu borom may nu tey di mercredi di 6 Sahbaan 1437 fa tabaarakallah nu nekk ci mercredi tamit di 3 mai 2017. فتبارك الله نونو لا نكوي نياني تامبليك بسم الله الرحمن الرحيم يلا كاتنال نو نو اغال لك الحمد لله رب العالمين كحدته داني نيان فيب فو خامن كادو اغنا فا نو جانغ فاتحه جانغ لا جاباندي سي خول هو الله احد gannaaw ba nu ko defee xaddiya si sallallahu alayhi wa ak bépp saalihin ñu def ko xaddiyaay bépp néewu jullit boo xam ne ma nga barsàq di ñaan yàlla beesal yërmande sa ñoom dina ñaan yàlla beesal njëggal sa di ñaan yàlla tamit leeral seen gannaaw noonu la ni siyaara kilifay diine yi di sàkku seeni ñaan di leen ñaanal tamit fa tabarakallah yàlla guddal seen fan lool fa tabarakallah waaye yàlla wéral seeni cër ndax nanu koy waxee rekk alxulama warasatul anbiya te yàgg naa di koy wax ne Garanti Sénégal mooy lanuy kilifa yi nu yàlla jagleel dafa tabaraka laa kuy xelaat rek xam ne lu bëree bari nu ngi koy dégg si ay réew yoo xam ne bii moom lan frontière te yàllaa ngi nuy dimbale kenn déggagu ko senegaal tey fa tabaraka laa yàlla si kàttanam mën nay def du doon lu ñuy dégg fii ndax lu tax. mooy yàlla daf noo may ay kilifa yàlla it may nu koo gis rekk nangu naa am kilifa kilifa goo xam ne lépp lu mu lu jëm mu jàpp su kilifa am na delluwaay boo xam ne su ko kooka waxee rekk dana topp ndigalam tey fa tabarak la seen ndigal yépp it doon ndigal loo xam ne ndigal yu yàlla di gërëm la kon fa la sens boobu du lu ndaw dinañ di wax na nag ne am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën kon loolu bu nu ko xeeb fa tabarakallah xam ne lu rëy rëy rëy rëy yàlla may nu ngi ñaan suñuy kilifa di ne fa tabarakallah yàlla yokk guddal seen fan lool te wéral seeni cër di ñaanal sunu kilifay aada di ñaan lay seen yéene yépp ci Sénégal ku ci nekk fu sa waay nekk rekk te am loo yenu am loo yor moo xam lu la peuple bi fal la walla moo xam loo xam ne décret la fa teg yàlla kàttanal la ba la sa kilifa doon ut sa yow fa tabarakallah yàlla motal lépp di seet woy tawat yépp ndax macha allah émission Wadduha ñi yàlla teg sa ñoom nattu te mooy nattu feebar muy yaram bu sutante ñu ci bëri dañu koy wettali di si dalal seen xel ndeysaan yenn saa yi dangay ngay jokkoog nit mu ne dama la dégg rek sama xel dal lool fa tabarakallah kon nu ngi ñaan yàlla wooye fal yaram yépp na ma ko yàgg di waxee rek ne tawat mbindeef la nii si mbindeefu yàlla yi ndax lépp lu nekk rek fa tabarakallah si ndigalu borom bi lay doxe noona mu koy joxee ndigal kon fa tabaarakallaa soo jotaatee ndigal rek day bàyyi ndax yàgg naa di koy wax ne man déggaguma wala ma gis tawat bu dayoom àggoon si tawat yonenti yàlla ayuba sabir te waa ayuba isnaada rabbahu anni masaniyal seytaana bi nasbi wa xasaab anni masaniyal seytaana bi nasbi wal xasaab loolu nu war see déggee si ne baraana tawat yoo xam ne bi fa loxo yi seytaane mën na say laxasu waaye ba mu soobee borom bi urkut bi rijlika haasa muxtasil baridu wasaraab fa tabaarakallaa tawat ba àggoon na ba lenn rekk la dese woon si jëmmam te mooy xol xol ba muy sante yàlla di koy tuddee yàlla ba mu demee ba benn sax xaw koy gaañ ci xol bi mu onk borom bi ne ko sama jàmbaatu da ngay mu ne ko xalaatuma ko waaye comme lii laa dese woon pour man lay sant loolu rekk mooy tax waaye fi tabaarakallaa du ma masa saalik si loo xam ne bi yaa ma ko teg demoon ba desewul kenn fa tabaarakallaa ñëpp daw ko ba mu neexee yàlla yàlla defaraat na ko ba fa la demoon lépp dellusi na kon nan di bàyyi xel yenn saa yi si ne yàlla danay won boppam danay wan boppam doomu aadama wan ko ne gën koy wan ne ko moom mooy yàlla li ñuy wax nattu kon fu muy ñëwee rek lu jaam di sant rek na ko yokk boo dee seet nag dafay xaw di mel yenn saa yi jàmbat dinay gën di bari sant te wallaahi nu waroon dëkk di sant la in sakkartum la ko commencé si contrat ba nu amoon ak borom bi commencé si biir way jur a xat ba mu xat borom bi dina fay fekk fa la doomu aadama gane ci àddina yit borom bi di koy kàttanal mu dëkk ak way jur te na mi màggee way jur mënu lay wax nii la sama doom di màggee lu day dem bam yag rek gi yek na mu ngi ree dem bam yag yek yëg ne mu ngi def atana bopam man na tok dem bam yag gis muy ram dem bam yag muy jóg ka daanu borom bi tete di tete fa tabarakallah ba katan mat fa tabarakallah yalla mu sop ko ngay gis yàlla mu sob ko ngay dégg mu sob ko ngay wax mu sob ko foo bëgg a dem dox ak sa tànk dem te am jaamam yu bari yoo xam ne bii xañ na leen ko te wallaahi na nga koy sant si xañ gam leen ko xañ ñax danoo xam ne dogalam la te it borom bi lu mu xañ doomu aadama fii si àddina te mu muñ ko bu ëllëgee sa ñami njëkk récompensé ñooña sa leen ni bokk xañ na duy xaw di neex nag waaye ku yàlla teg nattu ak nattu bu lu mu mën a doon loo doon sant rekk dolli ko xam ne fa tabarakalaa borom bi ku màggal doomu aadama la ko ko war maa la waaye danay nattu yenn saa yi doomu aadama nattu àddina ngir cëram yokk ëllëg barsaq ëllëg àllaaxira fi tabarak laa kon nuy sant nan yokk sant te gën a wàññi jàmbat loolu lépp fi laa yàlla di def loo xëy ndekkee balay deux nga soxlawaa lekk leneen lu tax mooy la nga ndekkee woon taxawul dox na ndax defe naa su taxawoon doo mën a doo doo mën a dugal leneen ndax fa tabarakallah biron boo si doon sol te dara génnul bu yàggee biron ba day fees waaye yàlla di def lu dugg rek mu togg ko jël yenn yi dugg tasaare ko ci cëri doomu aadama yi ba fa tabarakallah yaram di dund leneen la nga xam ne mbalil la mu génne yooyu yëpp fa nga am ko contrat borom bi te amul benn facture xool bu ñuy jox nit yow kan li nga xool si weer bii yëpp war nga fay facture nangam gisaguma ko te foog naa ne du am te wallaahi fu nit beneen lumière fu nit mën a jëlee waate lumière danay jot facture boo xam ne su ko fayul na mu am lëndam si misaal rek képp koo xam ne abonne nga si Senelec sunu la joxee facture du ñàkk fan yoo xam ne boo fayul nu coupé la te fayagun borom bi benn facture lu dul mu wax nun rek nan koy sant nan di yokk nan koy sant mu nuy dolli bu benn facture lu dul mu digal nu nu jaam ko saxal ak nekkam te bañ ko bokkaaleeg lenn defe naa ne boobu bu contrat fa tabarak laa wa ma xalaqtul insi wal jinne illaa li yahbudun du contrat bu diis kon fi tabarak laa nan gën a yokk sant te lu soob yàlla ba mu teg ko ba mu teg nu ko nu muñ ñaan ndax julli ñaan rekk la boo seetee li dinaa di wax ne lépp lu dal doomu aadama rek yàlla teg na ko ku la gën ndax boo seetee yonent fi tabarak laa 124 000 anbiya ak rusul yi 313 yi 313 euh, yi mursal yi 25 yi ñëw saar xuraan yi ulu xas mi ku si ëpp garaar rek gën sa diis ay nattu kon nan di xam ne yàlla yàlla mooy borom jamono yàllaay tege mooy tegge waaye fatabarak laa dinay dem ba yenn saa yi nit lu ko dar rek mën na jël jëmmi leneen mu teg ko diggama yàlla ne ah ke ma dajal tey xam naa ah ka ma tuddoon xam naa ah soo demee di wa nangam tabarak laa day mujj dem ba mel ni dogal yi leneen a ko yor kudul borom bi te li ni wax rek loo gis rekk am na ku koy kondir waaye kay kondir ji àddina mooy la jalaaluhu wax sa kalam kamal si noonu la ñu jaaree rek di jaale ñi nga xam ne bi ñoom la seen bakkan des si xew-xew yi passé ndax yàlla dafa def lu ay semaine a ngi nii depuis le 2 avril 2 avril amoon woon émission Wadduha direct xew-xew yi fi jaar moo xam Medina Gounass Daaka jullit yàlla yooyu nga xam ne danoo utti woon yiw jaama ji woon yàlla si ndaje mu mag bu mag boobu nga xam ne dinaa di wax ne waxuma la Sénégal rek waaye garanti na Afrique ndax weet di tudd yàlla guddi ak bëccëg fa tabaarakalaa loolu yiw bu yaatoo yaatoo yaatu la kon nu ngi jaale ñi nga xam ne bi ñëpp seeni mbokk des na fa di wax ne lu diis la nag fa tabaarakalaa waaye sax it la di ñaan yàlla leeral seen gannaaw di ndokkeel bu baax xalifa ba seex Ahmed Tidiane Ba di ndokkeel tamit waa kër maam Fàllu Mbakke si kasu rajab di siyaare bu baax xalifa sëñ Fàllu sëñ Abu Mbakke kasu rajab fa tabarak la bu nek kasu moy 27 mu melni ki moy laylatu isra wal mihraj se la nu wàccee julli nga xamne mom la ne wax moy kenu din bu yel islam halwa khamsa ganaw sahadatu an la ilaha illa allah lan lañu nu tek sahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah lu si tege iqaamu salat moy taxawal julli nga xam ne bii fa tabaarakallaa dañ ne su jagee rek léppi doomu aadama jag na lu tax mooy képp ku ko jagal yàlla dana lay defar ba lu bëree bëree bari fa tabaarakallaa yàlla dana la say musal yàlla dana la soraaleeg loola dana la dëddaaleeg moom it ndax inna salaat tanha anil fahsa wal munkar ni ma ko kilifa gu mag waxee woon fa tabaarakallaa te ma di koy wax toujours ne ko kilifa diine nga muy alxaaji xaadim rasul Guèye si bi may wax nan dee gën a soññ nit ñi si julli ndax sa la lépp lépp lépp di defaroo ndax dina di wax na ki nga xam ne bii a nga sa moom leeru julli dana tal leneen lu dul yéene dem suba moo xam fu mu mën a dem rekk te yéeneem du lenn lu dul Malick Sidibé daal fële mu toog dama bëgg a puus man ma toog wala fa barak la àndu diw mee ak diw bee daal neexuma du lu war a am wala fa barak la yàlla dogal sëy si ñaar ñoo xam ne bii ñaar ñu bëggante lan te yàlla tax nga ne kii warul sëy ak kële dinaa jéem a def loo xam ne bu soxlaa soxnaam ay siditam day damm yooyu yëpp noonu koy waxee rek na xisbullah dafa am xisbu saytaan am te ba àddinay tukki nag dafiy jóg yàlla yor lépp it waaye tabarakallah dafa am ñu mu ñoo xam ne da leen a rëbb ak képp ku leen topp te mooy iblis te toujours ay taalibeem di yokkit fa tabarakallah mu bëri lool tamit ñoo xam ne danoo connecté wu sa réseau ba lu nu jéem rekk yàlla bàyyi leen àddina yàlla jay leen mooy tax fa tabarakalaa dinaa koy wax ne ki nga xam ne dafa yor ay xaawam nit nekk ba suwet walla moo xam muy fas di jàng di muy tufli di fas di tufli di fas di tufli di fas ba su paree moom mu ngi fii kami fasangeer Europe wala États-Unis lépp loo xam ne bi moom la fas sa moom rek loola day bañ loola war na noo xam ne fi tabarakallah liggéeyu seytaane la tey na yàlla jaye woon Namrud dinaa koy wax lu bëree bëri ñoo ñëpp seeni taalibe seeni sët bay laa yow mi din du fi jóg jaaye woon ko firawna nga xam ne fit ba rëyoon na ba ana rabbukumul ahla nu ne déedéet waaye mu teg si ne maa xalimtu lakum min ilahin xayri te bu sooboon yàlla rek waxuma la mu di koy wax waaye bala koy xalaat rek yàlla woon ko ne moom mooy yàlla te war na ko ko sax ba mu demee ba mu xam ne yàllaa yàlla sa la xolom bëggoon a tuub mu ne ko wallaahi paase na fi la kon sunu boroom ku ko fàtte rek walla nga koy utal ndend wala ngay jël sa puwaaram dara mu seetaan la wallaahi daf ko neex moom lay wax lu bëree bëri si ne mooy tax dama man Ma ay si nangam ma man nangam ma gaw si nangam képp ku koy def rek fi tabarakallah wala nga koy wax lu bari war nga seetaat sa bopp yenn saa yi ndax dogal yi borom bay ko yor jalla jalaluhu fi tabarakallah anniversaire julli yalla def jamono yi nu nekkon si xalwatu moo waraloon ngeen amoon rediffusion nuy ñaan lépp loo xam ne bi mas nañ ko fee wax si ay nawaafil yàlla barkeel képp koo xam ne jël nga si yoon di ñaan tamit nu gën a fonk waxtu juróom ndax nañ koy waxee rek su fonk ga amee yàlla dana def si ñun jikkooy jullit te jikkooy jullit sunu ko amee rek fa tabaarakallaa lu bare bëree bëri looy dégg yàlla dana ñu dimbali ba loolu la jóge fi di ndokkeel bu baax tamit njabootu maam limaamu laay si ajibu daax yàlla di xalifa bi Baay Abdullahi Thiaw Laay di ñaan yàlla yokk ko wér di njaboot gi yëpp it di leen siyaara di leen ndokkeel ndax nanu koy waxee ñun alxaaji Modou Cissé dinaa di wax ne dina néew lool ma xëy ba jant sotta tudd ma turu maam li maamu laay kon si barkeb maam li maamu laay yàlla sedd nañu si lu tax yàlla la sob bi ma ñëwee dakaar nekkuma wàccuma caaro yi nekkuma Fass nekkuma Medine nekkuma Wakam géejawaay la ma dalal yàlla la sob tamit fa ma dalal géejawaay du fenn lu dul buntu lycée Maam Limaamu Laay dafa tabaarakallaa depuis 2004 ba léegi dinaa di wax ne néew na nu xëy te du nu tudd Maam Limaamu Laay kon si barke Maam Limaamu Laay si barke aji bu daax yàllaay nu ngi ñaanal njaboot gi yëpp fa tabarakallah sunu wolleere yanu fa am nu ngi leen di ñaanal di nyana sa ñaan di ñaan yàlla nu yàgg ko taxaw bu baax fa tabarakallah di ndokkel tamit bu ma juumul tey surne internasional mooy di leen ndokkel di si jiital kër gi di rajo municipal de Dakar eh, kilifa gi nu ngi koy nuyu bu baax di koy ñaanal yàlla yokk si kër gi di rajo municipal de Dakar ak euh, média yëpp yàlla yokk fa xéewal yàlla yokk fa naataange yàlla kàttanal ña ko jiite it fa yokkal ay xéewal lool it ña fay yëngatu sëñ Malick Sidibé nu ngi koy nuyu bu baax euh, fa tabarakalaa sama jàkkaarloo ak moom gëj na nu ngi koy nuyu di koy siyaare di koy ñaanal nekk noonu Souleymane nga xam ne moom laa fi doon jàkkaarloo jamono yële passé presse moo xam presse écrit ba la moo xam audiovisuel ba la moo xam rajo moo xam hmm, presse en ligne bu mu si mën a doon rek si kàttanu yàlla nu ngi ñaan lépp rafet fa tabarakallah nu ngi ñaan lépp lépp lépp rafet ba nga xam ne bii macha allah eh, deru kenn du yàqu dinaa koy wax ne nanu koy wax rek wax. Dan ne so waxe rek raw nga boom tek ne boom googu nga raw nak ñaar rek kay am ben bi nga wax ba yew sa bop fa tabarakallah te lolu wax yaas billah lolu jar di muslu kon kep ko xamne bi yaangi ci si rek nu ngi lay ñaanal di ñaan kër yépp yàlla yokk fa naataange ndax ñun yàlla dogal ñoom ñëpp sunuy wëllëre leen suñuy soppe leen bu mu si mas doon mën a doon rek macha allah baraana média boo xam ne bii amulu fa jotaay kon nu ngi leen di ndokkeel si bés boobu di leen nuyu di leen siyaara di ñaan yàlla yokk ay xéwal di nuyu bu baax njabootu Wadduha fa tabarakallah di leen siyaara di leen ñaanal. danu siy jiital auditeurs yeeg auditrices tay tey pays yi fépp foo à ne de Wadduha ma nga fanu ngi lay nuy di lay siyaar eh, ndax defe semaine yef tabarakallah eh, nu ngi doon jot appel fu nek doon nuy laaj luy sababu rediffusion yi waye tabarakallah yalla nu gennon genn bu gatt bi nu yaayu Wadduha nu ngi koy nuyu nga xam ne moom macha allah mooy yaayu soppe Wadduha yëpp Adja Aram Ndiaye présidente association Wadduha nu ngi koy nuyu ak ñi mboot ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di lay ñaanal di sàkku sa ñaan Wadduha solidarité alxaaji Modou Gaye ak képp koo xam ne bi yaa nga say participer ñu ngi lay nuy di lay siyaara di sàkku sa fi fa la di nuy bu baax ñi nga xam ne ñoom la ni liggéeyandool te nuy jàppale si liggéey bi Omar Diallo nuy koy nuyu bu baax fa la Alla Gajaga Xadim Gay Xadim Jaay nuy koy nuyu bu baax la di nuyu yaayu Mohammed fa la di leen siyaara di nuyu sunu wayjur yi nekk point 1 nga xam ne noonu fa yoral boutique wadduha di leen jéggalu si woote yeeg fa tabarakallah tegtal ñi ña fay ak seeg coonaay am nu ngi xam ko nu ngi leen ni ñaanal di sàkku seen ñaan sunu jigen aja aram jai bu tëngeej sunu goro mohammed diop nga xamne nonu nekkal tengej nu ngi leen di ñaanal lu bari bari fi tabarakallah yëg nañ bu baax itte ji nga xamne bi mom lañu am si wadduha sunu jigen soxna jaaram boj bu keur Massar mami it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di nuyu njabootam sunu jigen soxna kumba kah bu mbur nu ngi koy nuyu bu baax di koy ñaanal di nuyu bu baax tay si wer bu mag bi di saxbaan nga xam ne laytaay la bokk na si laytaayu Ramadan ndax màgg gu Ramadan màgg a tax nu laytaayal ko rajab ak saxbaan te muy weer yoo xam ne lépp yiw la fa la di si nuyu bu baax sunu wëllëre sunu xarit di alxaaji xaadim rasul Guèye di sàkku ñaanam fa la te koy ñaanal yàlla yàlla yokk wéral ay cëram yàlla yokk guddal fanam eh, ndax liggéeyam lépp mooy lislaam alxaaji xaadim rasul nu ngi lay nuyu fa la di nuy soppe yi wëllëre yi fépp foo xam ne bii kuy wettalu ko Wadduha ma nga fa nu ngi lay nuyu di lay siyaara di sàkku sa ñaan xam naa tey ka xaadatihi comme nan ko daan defee rek ndax xaw nay gëj doonoo yéene sunu demee ba si kanam danañ ubbi yoon bi ngeen mën a wettali konte ñun si 33 821 14 85 di nuyu bu baax sunu wëllëre di ko xam ne macha allah ku bokk ci ñun la di Mouhamadou Lamine Muntaxa baax fa tabarakalaa Mouhamadou Lamine Muntaxa nu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko kattan yàlla yokk ko xéwal ndax eh, xam nañ bu baax tabarakallah fi mu nu fété ak ité ji nga xamné mom la am ci wadduha ni ngi koy siyar bu baax mahamadou lamine si katnu borom bi inshallah eh, sunu demee ba 23 h da ngeen mëna wétali wettali compte ak ñun si 821 14 85 nu yéene tey rek si katnu yalla ñaar fukki appel yi ni ñëk am si kàttanu borom bi sunu jokkoo ëllëg lépp loo xam ne seen itte la moo xam lu nekk si boutique bi la. du ne dañ leen koy jox gratuitement waaye dinañ leen si teggil cinquante pour cent yi mu doon xaddiye boo xam ne day dox suñu diggante ak ñoom lu fa mën a nekk rek te nu ittewoo ko si kàttanu borom bi su fekkee ku leen. defal istixaara lanu bëgg seetaleen seeni bunt si kàttanu yàlla bu nu jokkoo si kanam dina jël seen tur sunu jokkoo lekk incha allah nu wax leen yan yoon la ni jaar ba loolu mat fàttaliwaat ñëpp ne yàlla si kàttanu borom bi yàlla def na parfum bi nga xam ne moom lañ doon xaar te mooy parfum yàlla def na mu jàppandi si kàttanu yàlla képp ku ñëw boutique ba buntu lycée maam Limaamu Laay da ko fay mana am niki noonu diwu bopp jàppandi na fa tabarak la niki ngeen fa don amee yeneen produit yi fa tabarak la ku si bëgg rek su jaaree si wadduha point orgu dana fa mana am information yépp di nuyu bu baax tamit babacar ndiaye soda bu info réew mi nga xam ne fa tabarak la nu ngi liggéey ak wadduha léegi nu ngi leen di ñaanal ñoom tamit eh, fa nu yéene àgg si kàttanu yàlla yàlla na leen ba nu mën fay àgg kon sëñ Malick mën nga am loonu yëkkatil tuuti bu ko defee nu am lennat lu nu wettali konteeg mbokk yi su 23 heures jotee nu mën a wettali konteeg ñun si 821 14 85. maa bëgg yoon nen bi Moustapha moo ma tax نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كيوال ديكتنا جوكتي على جمود سيزن يريغو أحمارا سيزن ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول البلاد.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

yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo muhammadu rasul alayhi wasallam wallaay moonu leen gënal seydina muhammad salallahu alayhi wasallam sëñ baara diouf yal na yàlla doole lay xéwal si xasida bu neex bi nga xam ne moom la ni barkeloo depuis 2011 waaye di ñaanal bu baax tamit sunu mag jooju di alxaji fàllu siise di ñaan yàlla yokk ko wér sunu wóllëre Dudu Kulibali ñoo ngi leen di bu baax di leen di leen ñaanal di nuyu bu baax tamit Abdoulahi Mbeng sama jarbaat di koy ñaanal yàlla yokk koy xéwal sama na ni di nuyu Mbeng numéro 2 dañuy koy bu baax fa tabarakallah foto tabarakallah nu am yoon yoo xam ne dañu ko yéene baaxee fépp foo xam ne kàddu àgg na fa di ñaan yàlla barkel ko te moy képp koo xam ne da nga nekk si xat-xat nga def ismullahi latif 9.000. mille mooy juróom-ñeenti junni gannaaw ba nga jullee eh, rakka ñaari rakka dina di taamu wala ngay def askar Nah julli dane audience la te moy ubbi tabarakallah moy le gëna gaaw ngir ñaan fa wat julli bokk sa dinañ di taamu nak soy ñoddi boy ut ak yëkkatiku so mané def juroom ñaari alam nasura juroom ñaari isaja nasrullah nga def ñaari rak rak bu ñëk bi gënaaw fatiha juroom ñaari alam nasura rakk ñaareel bi gannaaw fatiha juróom-ñaari isaja nasrullah boo sëlmalee nga def istixfaar julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina di taamu mën nay nekk li mu 70 ndax luy 70 nu ne mooy kun nga man koy jëlee ni ki nam nu koy waxee toggul nu mu neex neex rek fi tabarakallah ndab la koy def dafa war a set nga raxasee sa ndab ba mu set nag fa tabarakallah si istixfaar te istixfaar di lépp julli si yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mën mënoon ko tuddee ne bu fekkoon lettre la nu ne mooy tampon bam soo jullee si yonent bi sallallahu alayhi wa ba pare nga def ismullahi latif juróom-ñeenti junni juróom-ñeenti junni junni boo def rekk dangay ngay beesalaat sa aajo jàng qul man yunaajiikum fi sulumaati barri wal baxri tad'uunahu tadarru'an wal xufyya la in anjaytanaa min haazihil lanakuunanna mina shaakiriin nga jàng ko fanweeri yoon defaat beneen junni beesal sa yéene jàng aaye boobu fanweeri yoon soo defee juróom-ñeenti junni latif yi yaa ngi am si aaya boobu 270 cent soixante te ismullahi latif fa tabarakallah latif tadarik ni bilut fa surha mujibu sere wal umuru tayassar day tur bu bëri xéewal fa tabarakallah juróom-ñeenti junni latif yi ak juróom-ñeenti trente yi nga def si aaya boobu xul man yu najikum fi sulmati bari bahr soo seetee aaya yaa ngi am deux cent soixante dix nu ne deux cent soixante lan lay tollool nu ne mooy tolloo karimu ismullahi karim nu ne limu mu neuf mille biit lu tax fa tabarak la boo seetee dañ ne jumlatu kulli yi

dina di wax ne am na tur bu mag bu xam ne faatixatul kitaab lay jàpp te tur ba doo ñaar fukki xaraf ak benn fu tabarak laa day tolloog 3005 boo seetee 3005 soo ko pilisee si 5995 daf lay jox 9000 muy yoon bu ama ama am solo si képp koo xam ne bi fa tabarak laa am nga yitte am nga yitte fa tabaraka laa bëgg yàlla defal la si sutura ndax dinaa koy wax ne sattaar Mawlana daana ko ñaan lu bëree bari te mooy sutura jàmmi àddina ak àllaxiraar yi lépp mooy sutura fa tabaraka laa nu ngi ñaan yàlla yokk ko si sunu réew mii di senegal waaye yàlla yéen may ko képp koo xam ne doomu aadama nga rawatina képp koo xam ne jullit nga. kon yoon boobu képp koo xam ne am nga aajo fa tabarak laa euh, soo ko defee yàlla dana la won xéewal ba tey képp koo xam ne am nga ajo moo xam bor la moo xam itte la joo xam ne bii ba nga ñaan si yàlla yàlla fajag fajag aajo nee na nga naafi la Nyari rakka comme ni ma ko waxan leg rek rak bu njëkk ba gannaaw fatiha suratul duha mom ngay def juróom ñaar suratul duha juróom ñaari yoon rak ñaareel bi gannaaw fatiha nga def alam nasrah surah juróom ñaari yoon soo selmalee 4444 nga xam ne fi tabaarakala dafa am tur bu mi japp mom ngay def ci ismullahi latif nang koy defé nak da ngay def kaat def juróom-ñaari qul huwallahu ahad def sa ñaan julli si yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga def 40 def juróom-ñaari qul huwallahu ahad def sa ñaan julli si yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga def 4000 def juróom-ñaari qul huwallahu ahad julli si yonente bi salallahu alayhi wa sallam 400 nga julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def juróom-ñaari xul wallahu ahad ñaan sa soxla doog di def 4000 yi boo pare lépp yaa ngi am 4444 yëpp si ismullahi latif moom tamit fa tabarakallah yoon bu ama am solo la fa tabarakallah ki nga xam ne dafay am lu muy xaccu te mu bëgg si sutura nanu koy waxee fa tabarakallah yow mi def ben damaan nga bëgg sa sutura fa tabarakalaa yow mi def ben concours nga bëgg sa sutura fa tabarakalaa nga jël yoon biit si ismullahi latif bo seetee 1161 soko ko moy mooy juroom latif 1161 bi mom ngay def si ismullahi latif so paré nga def fatihatul kitab 129 di xaddadu latif so paré nga def ismullah الله فاتحة ngay def 129 nga def سورة إخلاص 66 66 دي تولوك الله سو باري لفسو يا الله nga def ko 700 فتبارك الله سو باري كم من فئة قليل خلب فئة كثير بإذن الله ولا حماح السابرين nga def ko 313 mamil fa tabarak la yon bu ama ama am solo yoon bu am am solo la si koo xam ne bii fa tabarakalla am nga concours am nga xaccoo booy def fa tabarakalla te nga bëgg si yëkkatiku moo baa ma ko ismillahi latif ngay def 1161 soo paree nga def fatihatul kitab 129 suratul ixlaas 66 ya allah ya allah ya allah nga def ko 700 كم من فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله ولا حمح السابرين قد في 313 قد تجيك جلس ينتبه صلى الله عليه وسلم بأي سيخة قد في 92 فتبارك الله لولو يون بو أما أم صلى الله سي كو حمد بي دنجي خاتشم بير نحن دي وحنا ويسا سالك حبادي حني فإني قريب أجيب دعوة دعي إسا دعاني وخلون مكونا ويسا سالك ما ولا ما دمبا حبادي xibaar yi nag mooy muhmin saalih ki nga xam ne bii wóolu na yàlla yaakaar ko yaakaar ne fa tabarak laa kuy nangu ñaan la te soo ko ñaanee mu wuyu la loo si yor rek te mu dëgër pas-pas bay dëgër ndax dinañ koy wax ne pas-pas daanaka mën ngay wax ne mooy àggale ñaan dogu ba ngay am ak xastu bi nga xam ne bii biir na la ne am nga koy yaakaar am nga koy woo am nga ko te biir na la ne kooku nga yaakaar di koy woo soo ko woowee dina la wuyu te soo ko yaakaaree du koy tas dinaa di waxtu suur ne looloy tax bu dogg googu amee rek fawwat yàlla def si sa ndab wallaahi mën na koo duyu sax ba mu rembat du sa def tuuti ndax dina koy wax lu bëree bëri ne su dajee woon ak sëñ maalik am na nu ma koy ñaanee nu may waxeek moom doonte woo paas bu mu paasee ñibbi rek la yor amaana mën na ma ko jox dox wala moo xaaj ko sa digg bi lu tax mooy waxiin ba ak teggin ba ak euh, macha allah euh, la dox sa digganteeg moom waaye nag su fekkee danga nga bëgg ne man la mooy tax ma ne soo ma maa rek yàlla nekkatu fa mooy tax baatu maa man dinaa di wax ne ñun ñun ñu nu koy wooyee ñëpp war na war na war na noo def mars ba tur boobu nu wutal ko beneen wallahi dina koy wax ne yalla yalla man yalla mo man fa tabarakallah ñi ngi ñaan yalla faj aajo yeb fa tabarakallah di ñaanal sunu jarbaat yi nga xamne ñu ngi école tay jang yalla ubbi sen den yalla barkel la jangit nah dina di wax ne kontu barkel kontu barkel dañ koy xaw di fatte waye wallahi mo gën kontu bancaire waaw dinaa di wax ne compte bancaire luy génn rek bu yàggee amaana dara du fa nekk su dee barke nag lépp loo soxla mu faju te loo fi loo gën a yàgg di say xewal di yokk wallaahi seetlul bu baax ñi nga xam ne dañ fe nekkaloon yàlla ba léegi si fanu tëdd rek seen bàmmeel rek fa tabarakalaa mën na doon birse bu rëy rëy rëy fa tabarakalaa loolu lu ko waral mooy barke defe naa ne ko dajé lon ne xax ne ko tuf ba tul da ngeen jotee ye ñaar te da ngay toog ak borom barke ngay def itte nu la tuf itam di dalé kon no xamné barké barke fa tabarakallah barke moy lip, ku wedd barke ne ko benn kat waxé won né ku wedd barke rek na photo boole fotoom ak foto ka yalla may barke <laughs> nee na sunu ko yóbboo si marché bi ka weddi moom kii kan la rek lay dégg <laughs> du am prix kii kan la kii kan la lu tax wallaahi kon war a xam ne barke fi tabarakallaa lu ama am la te luy jara jar di sàkk la te fi tabarakallaa sàkk googi bu nekkee si yow day topp ndono mooy war loo fi bàyyi rekk day doon yow fi la di ñaanal tamit sunu jigéen yi ñi nga xam ne toll nañ si néegu sëy yàlla may leen ay sëriñ yu baax fi tabarakallah te barkeel ànd yi barkeel sëy eh, fi tabarakallah boo dee seet xaw nay bari léegi la ngay dégg ànd du yàgg nga dégg teqali ko mu doon nag looy xam ne amaana ndogalu yàlla la waaye nan gën na yokk bu baax war ma si soxna yi gën di dàq seytaane it ndax dinaa di wax ne ànd yu bare bëri bëri problème yi lay waral tàggali ko ga ñaare mën nay nekk mbir mën nay nekk liggéeyu seyaatin dontewul woon lépp ndogalu yàlla la waaye dinañ di jàng si sóoratul baqara ne dëddaale lu ama am la te mooy ñu àndi sëy nu yàq seen diggante ba fa tabarakalaa la war a na doon mahaba ak mawada day mujj doon alxadaawa wal baxdaa kon na ma koy waxee toujours rek ne nan di ñagaale àndi nan di ñag sëy dina toll jamono joo xam ne fiir yi dafa bari lool fa tabarakalaa mucc it xaw di jafe mooy tax lépp lu nit am rek jëm koy ñakk ba lenn seytaane du la si jiitu su dee dëkkuwaay la bu dee kër la su dee njaboot la su dee liggéeyukaay lu mu si mën a doon rek fa tabarakalaa day am solo nga ñàkk ko ba nga xam ne bii lépp luy pexe yàlla dana ko musal dana sa musal barab booba di ñaanal tamit fi tabarakalaa ñi nga xam ne bii marsan ambulant yi gardien yi fi tabarakalaa sëfoor yi ñëpp it nu ngi leen di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi xëy sa itee doon loo suturloo ba sangor ak sa diine mën a mat nu ngi ñaan yàlla defal la sa loola nga xam ne bi moom ngay sàkku defal la sa ay xéewal ñaan yàlla yi defal la sa barke fa tabarakalaa chef d' entreprise yëpp it nu ngi leen di ñaan nal yàlla yokk naataange si seen entreprise ba nga xam ne bi macha allah nan koy waxee rek ni ko xadis waxee ne fayal liggéeykat bi balay ñaqam fendi nuy mañ bañ ji am ay retard de salaire ndax dinaa koy wax ne entreprise yu bëri nu ngi fay te du lenn lu dul àq ndax ki nga xam ne bii sa yoxee jox la dooleem mu def ko ay semaine ba muy weer la jaadu te jekk rek mooy fa tabarakallah nga mën koy jox loo xam ne bii ñam doon bàyyi kër ga te noo xam ne bii daf doon uti dinañ xam ne lii kat moo waraloon seen waayjur di génn muy lu am am solo kon nu ngi ñaan yàlla yokk naataange si barabu liggéey yu kaay yëpp ba nga xam ne ña fay liggéey ñëpp seen xol day sedd wallaahi xol bu sedd ñaan gu rëy a la mooy tax yenn saa yi dinaa koy wax nit. si bu ma ko seetalee ay bunti saraxam ne ko fexeel diwu bëgg noo xam waay juram la walla ay tu tànk la wala benn kilifa la ma ne ko fexeel ba am loo bégal su béggee rek si kàttanu yàlla lépp loo xam ne ma nga soxalam jëm si yow rekk day doon faj ajo si yow loolay waral ñaare dangay gis ka ëpp lu muy joxe toujours yàlla di koy gën a bettee xéwal lu tax mooy ñaan ñaanu xol bu sedd ba nu koy ñaanal loolu mooy dellu si moom mooy tax joxe baax na lool lool lool lool fa tabarakallah di koy def li wàcc xilaa di bettee nit xéewal wallaahi gàllaaj gu rëy rëy rëy la ndax nan koy waxee rek làmmiñ boo mosula mooyee loo sañaan ma am te ni ko sunu bàyyi ba daan waxee alaaji bu saaxoo ne nit mënta ami pexe ba jël làmmiñu nit mooy sa delloo ko ko noonu loolooy tax tabaraka laa di bettee nit xéwal te am ñu bëree bëri ñoo xam ne bii amaana lanuy seen taxawaay sunu seetoon ay jaamu yàlla yoo xam ne bi fi tabarakallah moo xam arrière de luyaas yaa ngi fi arrière de luyaas yi moo xam fi tabarakallah njaboot ga jàngatu ndax da leen a dàq école moo xam fi tabarakallah ordonnance yaa ngi fi te amuñu lu nu ko jëndee moo xam fi tabarakallah dund ñetti fan amu fi nga seet kooku rek bul ko jox lu loo xam ne ñaari fan ak ñett lay am jox ko loo xam ne fa tabarakallah ba ay weer xelam dana dal wallaaxi diiran jamono boobu lépp lu mu xéewlu xelam day dem si yow lépp lu mu jaamu yàlla xelam day dem si yow te bu xelam nee si yow lépp lu mu la yéene rek loola day agsi kon na may yàgg di koy waxee rek ne nan gën a jaamu yàlla si jaamu yàlla yi nanu koy waxee rek defe naa ne réew mii di senegal képp ku bëgg jàmm yàlla si mbindeef mm, fa laa di nga ko man xaj na nag li wàcc laa mooy xaw di jafe la nga xam ne da koy def te yàlla rekk tax amaan na ñu si bëree bari baloon koy man lool rek fa tabarak laa na nga grand grand théâtre wala nu nga suraano wala caméra tiim na leen waaye nag ba jant timis passé nga dugg si barap seet ña nga xamne bi soxla na ndimbal nga dimbali len te yalla rek tax ñi nga xamne bi yalla mané na len gan fa tabarakala nu len koy gën di denk nah day doon gàllaaj gu reey reey reey reey sa ñoom day doon yew bu mag mag ndax la wax ne alal mom la nga sol mu ràpp la nga lekk mu rees loolaa si sëmuur loolaa si ak lu mu bari bari nag dina di wax ne ki nga xam ne am na immeuble wërsëgam ak wërsëgu ki yor benn néeg benn la bu guddee wërsëg borom benn néeg bi wërsëgu benn lal sa lay mën a tëdd te du ko fees borom immeuble bi it mënta tëdd immeuble bi yëpp si benn lal rekk lay mën a tëdd waaye lal ba sax du ko feesal si genn wàll lal lay tëdd loolaa siy wërsëgam kon leneen la si des lépp fa tabaraka laa nga mën si jaamu yàlla te mooy di jaamu si jaamu yàlla yi fa tabaraka te mooy di di dimbale jaami li wàccillahil karim kon xam na Sëriñ Malick Eh, su mën nga noo yëkkatil sëñ Bara su fekkee am na ku ñu nu jël ko si 33 821 14 85 bisimilah ki si yoon bi. salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatulah. Mara Cissé Diagne Makhtar Wakam. ah sëñ Diagne na ngeen def maa ngi lay siyaare bu baax. Eh, jaañ jaañ jaañ maxtaar xel xel maa rafet na sëñ jaañ jaañ jaañ dañ doon rafet na rafet na baax na ah, incha allah kon nu jokkoo suba si kattanu borom bi waaw baax na yann yàlla barke la jaañ baax jërëjëf jërëjëf sëñ jërëjëf jërëjëf sëñ Makhtar Diagne macha allah ku fidel si émission Wadduha bisimilah nu ngi nuy bu baax sëñ Habibou Mbaye sëñ Omar Seck Alhaji Modou. dara bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah waa Yaram. yan yàlla nangu tabarkel. ñu rafetlu xam jërëjëf jërëjëf. yàlla barkel lépp. maa ngi wootee ginnaaw raay sa soppe laa eh, boobu léegi maa ngi koy waaj pour bëgg a ñëw si diwaan bi mais moom yàlla dogal gu ko ba na yomb te barkeel. baax na incha allah mën naa am tur bi. si Abou baax na incha allah baax na si kàttanu yàlla nu jokkoo ëllëg incha allah. waaw yàlla na yàlla. jërëjëf jërëjëf na yàlla barkeel la amiin amiin amiin Ndiaye amiin. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. wallaay jërëjëf jërëjëf Ndiaye. wallaay wallaay yal na yàlla barkeel leen. wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf yal na yàlla barkeel leen jërëjëf. jërëjëf barakallah barakallah ñu ngi nuyu bu baax sëñ Kalidou Gaye di koy siyaara di ñaanal eh, kilifa gi fi bàyyi koy sunu waajur boobu yàlla beesal yaram